bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw yëgle bu yaatu bi ñu amaloon ren jëm ci jongante mbindum alxuraan bi ñu baaxoo amal at mu jot tudde ko yaatal mbindum alxuraan C3S moo yëgal ñépp rawatina candidat yi jotoon a seen bind ne dafay ajandi boobu le ba yeneeni jamono li waral lu ni mel nag moo di tolluwaayu mbas mi di coronavirus lëmbe àddina te néewal jotaay yu xumb yi bokk ci li koy xeex ba waral ñu jël bile dogal c 3 mi ngi fàttali ne warteef la ci moom mu sàmmanteeg yile dogal bàyyi ci waa kër muy xamal candidat candidat yi jotoon a bindu ne déposé yépp agsi nañ te saa ñu jubluwaatee ci weer liggéey bi daañu woo mbooleem ñi jàll ci xaaj bu njëkk bi comme ni ñu ko daan defee C3S mi ngi ñaan ci barke alxuraanul karim sunu borom jële fi mbas mi ci lu gaaw assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu anta bi ni'mati rabbika bi majnun sart yi nga xam ne mooy tax ñu war a julli yépp mi ngi ci ñoom it duñ war a ñëw julli ndax suñ lislaam day leen koo diggalul benn benn kon mu mel ni kon kenn kii mu ñaar ñi nag ñooy jullit ji nga xam ne ñoom day julli dana am na jamono yu leen di wàcc mu mel ni kon jigéen képp mooy ki nga xam ne am na ay jamono yoo xam ne julli li muy war war ñëpp war koo taxawee moom am naa ay jamono yoo xam ne moom du ko war ci bu tollee ci gis baaxam wala mu toll ci di soog a am gone kon julli kon loolu man moom rek la jullit bu jigéen wal doon koo xam ne julli mën na ko wàcc waaye góor moom amul benn jamono yoo xam ne julli dana ko wàcc kon foofu la jigéen wuutee ak góor ci taxawaay julli ak li rëy rëy moom am na jamono yoo xam ne moom du ko war moom jigéen ci bu toll buy soog gis baaxam wala buy soog am gone mu mel ni kon am na ay sàtt yoo xamante ne mooy tax boo jullee julli ga wér ndax am na yi jëkk yi mooy boo jul ndax mooy yi nga xam ne boo ko defee mooy tax julli war la yii nag mooy tax yi nga boo ko defee mooy tax julli ga mën a baax ba ca njëkk mooy faw da ngay doon koo xam ne laab nga laab goo laab googee nag mën naa ñekk ñaari façon laab ci sa jëmm ak laab ci sa li nga xam ne mooy barab ba ngay jullee ak li nga xam ne moom ngay sol loolu ñaar yëpp nag day da nga ko war a def da ngaa war a laab ci sa yaram ci taq taqali ko sa sobe soo xam ne dafa jóge ci yow wala mu doon loo xam ne da nga koo séq ak keneen mu mu mu juddu loolu ñaar yooyu yëpp da fexe ba laab ci laab laab ji nga xam ne moo na ci war mooy boobu boo waree jàpp nga jàpp boo waree sangu nga sangu ñaareel ba ca teguwaat mooy benn faw itam waxtu wu julli wi day day egsi ndax lépp doonte da nga bëgg a julli itam loo ak lu julli baax baax bala bala nga mën a def mu wér faw waxtu wa day tabbi waaye doo doo yàkkamti ba julli ko ci waxtu woo xam ne ak te egseegul ñaareel ba itam faw booy julli da ngaa war a nekk ci am melokaan woo xam ne yiw la melokaan woo xam ne comme da ngay déeyaleeg sa borom te boo doon déeyaleeg ñiiti àdduna yi kese faw bala ngaa dem da ngay wàcc sa waajtaay woo xam ne da ngay jàpp ne lii tax mu war mu yelloog la woo gi mu la woo bu doon su kon nag comme suñu borom moo la woo di la defloo dara nga war a jàkkaarloog moom war ngaa am yow itam noo mel noo xam ne dana dana dana wone ne yëg nga ne ki lay woo kilifa la woo itam mooy ki nga xam ne mooy ki ki ki ki moom woote mooy ki nga xam ne itam mooy ki nga xam ne woote moom rek moo ko war a moo ko sañ a def sañ a def kon loolu booy dem ci moom war nga am melokaan yooyu mel beneen ba ca teguwaat mooy boo dee melokaan woowee ngay mel nag muy suturaal sa awra da koy def ci loo xam ne doonut lu yaraax loo xam ne ku jàkkaarloo ak yow di gis di gis awra ya kon loolu doonut loo xam ne melokaan wu lislaam bëgg na ko ci kuy kuy wàjji julli ji da ngay yor melokaan wu da ngay sol rafet loo xam ne suturaal na sa awra te awraw góor ci li munta ñàkk mooy li tàmbalee ci bëti woomam ba ci mooy li tàmbalee ci jubbu xam ba ci bëti woomam bu dee jigéen nag lii awraam mooy jëm mooy jëmam jépp lu dul xar kanam xar kanamam xar kanamam ak ñaari tënkam ñaareel ba ca teguwaat mooy faw itam boo dee julli du ne du ne fa la neex rek ngay jublu faw dangay am foo xam ne fa nga war a jublu loola mooy fi ñuy tuddee la mooy fa nga xam ne moo jublu ci kaaba kon loolu mooy yi nga xam ne mooy tax julli gi mën a wér ñaareel ba itam am na nag loo xam ne bëgg nañu booy julli si nga de def ko ndax mooy tax julli ga nga rafetale ko ni nga ko war a rafetale bi ci njëkk mooy boo dee ñëw na ñëw ci ñëwin wu yiw bul bul daw bul waaxu yenn waaxu yi waaye nanga nga dox doxin wu te wu teey na nga na ngay na nga weggu itam ci mel melokaan melokaan woo ne ku la gis xam ne yow mii kat yaa ngi jëm ci kilifa gu gu gu yeyoo melokaan wi nga xam ne moom nga yoroo ñaareel ba itam booy dugg ci jàkka bëgg nañu nga jiital sa tànku ndeyjoor booy génn nga génne sa tànku càmmoñ bëgg na itam booy booy julli booy booy booy dugg nga am looy wax mooy bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah ala maghfir li zunubi waftah li abwaaba rahmatika muy dafa mel ni da ngay wax booy dugg ci jàkka ne suñ ginnaaw bi nga xamee ne li may tàmbali lépp fas yéene naa ko tàmbalee ci suñ borom te xam naa ni bu ma jógee ci suñ borom itam ki ma ci war a teg mooy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ndax yàlla moo moo teg boppam moo teg moo def loolu kon ginnaaw bi nga xamee ne fàttaliku naa ne yàlla rek mooy ki nga xam ne moom la war a tàmbalee lu may tàmbali ak lu may bàyyi xam ne itam yonante bi sallallahu alayhi wa sallam war naa koo bàyyi xel ndax moo may woon li nga xam yoon wi nga xam ne ci laaye ji mën a jaar ngir mën a am ngërëmal suñu borom la nga cay mooy dangay ngay xam da mel ne da wax ne man mii di maa ngi bëgg a jublu ci loo xam ne lu rëy rëy la lu màgg la te xam naa ne ku feesati bàkkaar la kon nag rus naa suñu borom may taxaw ci kanamam di di fa di di jul ngir bëgg julli ci maanaam di di yaaleeg moom fees ak dell ak bàkkaar te xam naa ne lii may bëgg a def itam yërmandeem képp mooy tax ba man koom defee ni ma ko war a defee kon day mel ni boo waxee ne bisimillahi wasalaatu wasalaam ala rasulillah allahuma aftah lii abwaaba ala allahuma ixfir lii zunubi waftah lii abwaaba rahmatika day mel ni da ngay won suñ borom ne ko man day xam naa ne ko doyadi laa ku fees ak bakaar laa te maa ngi jëm si narat jàkkaarloogu yow kon loolee nag bàkkaar yooye maa ngi ñaan suñ borom yow nga teggil ma ko maa ngi ñaan suñ borom yow mi nga xam ne jëf jii nga xam ne moom nga sant te mu doon jëf ju rëy te xam naa ne man ngir ma man koo taxawee ni ma ko war a taxawee loolu jàpp doyadi doyadi doo adama ma yumu ko kon maa ngi lay ñaan ci sa ma yërmande lu ma nu ma ko defee rek tam doon ni nga xam ni nga ko bëggee nga yërëm nga yërëm ma nangul ma ko ni ci sa kaw ak mbaax ginaaw loolu itam booy booy génn nga wax ne allahumma ighfir li sunubi waftah li abwaaba fadlika boo waxee bismillahi wasalaatu wasalaam ala rasulillah allahumma ighfir li sunubi waftah li abwaaba rahmatika yaa ngi jéggluwaat suñ borom xamal ko ne ko man waxtu mu ne damaa fees dell ki bàkkaar fees naa dell ki bàkkaar waaye nag dafa mel ni ñaar nga digle mooy nañ jaamu yàlla boole koog liggéey nañ jaamu yàlla tey liggéey jóge naa nag ci ci ci jaamu jaamu gi muy muy julli gi maa ngi war a jóg nag ngir sàkku ji loo xam ne moom lay mën a taxawee moom lay mën a téye sama teraanga moom lay mën a yore sama njaboot loola itam yaa yor bunt yi koy mën a jàppandal maa ngi lay ñaan nga jàpp jàppandalal ma ko defal ma ko julli boo ko dee def ñaan yi ngi ci ñaan yépp doon la loo xam ne lu doomu aadama soxla woo la soxla woo waxtu wu nekk njëggaluk suñu borom doomu aadama soxla woo na waxtu wu nekk itam yërmande suñ borom doomu aadama soxla woo na waxtu waxtu wu nekk itam xéewal yi nga xam ne moom la suñ borom di wàcce ci kaw àdduna mu am ci ni nga xam ne ni na ko war a amee te ñaari ñett yooyu yépp boo dee dugg ci biir yàlla julli yaa ngi koy ñaan kon mu mel ni yi nga soxla woo ci doomu adama di soxla woo di doomu adama soxla woo ci àdduna àllaaxira lépp ñaan nga ko booy ngay bi ngay dugg mu kon mu doon ñaan goo xam nga gu mat bàyyi xel la gu mat di def la ndax loolu mooy tax li nga xam ne moom lañu suñ borom sant ci àdduna ngir ñu taxawee ko ñu ñu di ko mën a taxawee suñ kemt lay kattan mooy tax itam lay tax ñu mën a mucc ci àdd ci àllaaxira ëllëg ñu am ko te loola itam mënuñu koo amee lu dul ci yërmande suñ borom ak njëggalu suñ borom kon bu dee xéewal yitam itam koo amee lu dul ci ay yërmandeem ak njëggalam kon ñu ngi ñaan xéewal di ñaan yërmande waxtu wu nekk ndax xam nañ ne ñaar ñaar yooyu ñooy ñi nga xam ne doomu aadama mënu koo ñàkk ci àdduna ak alaxira yërmande mënu koo ñàkk ci àdduna rawatina nag fu nga xam ne fa lañ jëm ak njëggal yitam mënu koo ñàkk ci àdduna si ndax àdduna dafa ay ay ay ay nattoo ki yëf yëf yëf yëfaan da ciy ñëw léeg-léeg yoo xam ne suñ dooyee di doomu aadama mënu ko yóbbee te loolee nag lay mën a tax mu tegg ko mooy ñi ñaan suñ borom mu jéggal nu yi nga xam ne moo nekk ci ñun loolu nag suñ borom mën na ko jàmm jàpp na ko yàlla dañ ko defal ñi ngi jég ñi ngi ñaan suñ borom mi nga xam ne mooy kii mën a mooy nangu jëf xam nañ ne jëf kët ñun ci doomu aadama ci doomu aadama ji ne kemtalaay kattaram rek la cay defe waaye nam ko war a taxawee kenn koo xam ne war a nga mën a wax ni jëf yi jëf ji ma suñ borom sant maa ngi koy taxawee ni nga xam ne ko suñu borom bëgg te xalaatoo ci yërmande suñ borom ak ak njàpp dalam xamal ne yaa ngi nax sa bopp ndax loolu doonul loo xam ne lu kenn war a jàpp la ba tax na kon ñi ngi ñaan suñ borom li nga xam ne lépp loo xam ne jëf nañ ko ci àdduna si ci loo xam ne mu lu mu digal la ci ñu war koo doxee ci suñu digganteeg moom wala lu ñu war koo doxe ci suñu digganteeg doomu aadama yi nga xam ne ñoom lañ bokkal nekk ci kaw suuf wala mbindeef yi nga xam ne moom lañ bokkal nekk ci kaw suuf yàlla nañ ko suñu borom nangul ci yërmandeem ak njëggalam dëppale noog li nga xam ne moom la bëgg te gërëm ko yal nañu yàlla suñu borom nangul suñuy jëf yàlla nañu suñu borom jéggal suñuy bakkar rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin